lu leen neex lu lay gërëm di la sax. di la di la dellu si la njëriñ d' ah màggal gi dey bi ma santee Serigne Saliou sant naa Serigne Saliou du ci noppi dañu daan wax ma santee ba ma noppee door a wax maay sant Serigne Saliou te du ma noppi. féete kaw ci xeeti jaamu yàlla yi ah, bisu tey jii bisu ëllëg ñu di ko waajal tey tey sax ci la ndax sëriñ Saaliw mu yóbbu màggalu Tuubaa ci ñetti fan dañ koy gàttandu buñ ne ëllëg la kon bis boobee cant gi la màggal gi bu bis bu ñëwee dañ ko gunge bu ñu nee démb la woon bis boobee ci màggal gi la bokk am ma dem taalu bi murit taalu bi sëriñ saaliw kon may taalu bi sëriñ tubaa ni taalu yépp màggal gi sëriñ tubaa ko digle ba muy bëgg a dem géej bi ko nasaraani jàppee jàpp maa ngi tuub wax ji bi nga xamante ni bii nasaraan yi defewoon nañ ne dañu koo jàpp mu ànd ak ñoom war lépp ñu wax son exil bis boobee mu waree ba nga xamee ni ñooñee dañoo jàpp ni jàpp nañu ko war ko yóbbu bis boobee mu fiy jóge ànd ak en bateau boobee bis la jàpp ni ci lay sant yàlla bu doon day dem ba ñëw mucc dara bañ ko jot muy en exil sept ans sept mois sept jours sept minutes son exil a duré une période égal à ce que je viens d'annoncer mangi wangi waa ngi waxi tubaab bi waaw ah, waaw ba nga xamee ni jël nañ ko ni dañ ko yóbbu sanki ko bis boobee ñu ko fi jëlee ci la ni ci lay tàmbalee sant yalla ëllëg di màggal gi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci lañ ko yóbbu woon mu dellu si ci lay sant yàlla woon nun murit booba sax man juddooguma wallaay fekkewuma ko waaye nag am murit laa ndax ba kere suuf ba kere yàlla di wal bufte bi bay Sëriñ Tuubaa di des ci kaw suuf boo lëggeet dañuy ànd ak Serigne Touba ndax moo ko wax te xam du jaas kon ëllëg day màggalu sëriñ day màggalu Touba sëriñ Touba moo woo taalibe yi ne nañu ko woo na ñëpp ëllëg ne nañu ko sant yàlla. ci bis bi ñu ko gaa yi jafe ni jàpp nañu ko war koo yóbbu bis boobee la tànn ne nañu ko sant la yàlla di dalee ci ginaar ba ci giléem kon noo ngi ci waajtaay wi taalibe yi nag ànd na ñoom man nu waaj waajal ko moo waral nag yi moo waral giléem yi moo waral xar yi moo waral ginaar yi. cheikh bi foofu laay kiiwee. waaw si màggal saa ñu ko saa sa xarit lay def nga xamante ni moom ngeen moom nga mën teral jaam bu fekkoonte ne day lislaam nangu na tont li nga laaj. kon ma tontu waaye def ma noppi naa maa def lii daa amul solo ah yaa ngi jàkkaarloog mbooloo mi ak waajtaay wi yaa ngi jàkkaarloog nag yi giléem yi xar yi yaay apprécier yow yaay seet li nu def ñaata la boo ko mënee compter nag yaa ngoog giléem yaa ngoog xar du man mala koy wax def ba nu naa def li da amul solo sunub sering, di saliw saaliw tuba. Jangale tubaa jàngalewunu non nga def ba noppi naa maa def li pe lepp kat moma mom serigne touba waye ci sahir kone ne da ngay góorgóorlu rek te lu ci waay def mooma ba tax na déedéet du ma la mën a wax ñaata nag ndax man ci sama bopp defuma ko Serigne Saliou def lépp ci aqiiqa waaye bu fekkoon ci xam-xam bu tond bu nit di am dama laa sama taalibe yii ñoo jëf-jëf ji moo nag ku leen bàyyi woon ñoom rek de duñ ko def dama ni seenub sëriñ sëriñ Tuubaa digle ko ma ma leeral leen ko ñu ànd ceeg man ku ci ne indi na gileem walla nag parce que ci néew ñu indi xar ginaar waxatuma ko ndax ci ginaar la waroon tàmbali ba ci gileem waaye jamono ji sëriñ Tuubaa di wax ginaar booba ginaar sax yombul waaye jamono jii nu toll taalu bi bu ci womat am xar andil la sax day mel ni am na kers gën gaa néew léegi aw nag dañu tàmbalee jëm giléem nag giléem rekk a xew léegi waaye xar sax na boole nañu ko ci Sëriñ Tuubaa boole na ko ci li ñu war a def lu woon ne daa am ñu taamu ndawalul ginaar ñi taamu ndawalul xar kon ma xam ne màggaluk Tuubaa ñi ciy lekk xar walla ak ginaar dootu bari waaye nag dañ di loo xam ni nit daa bëgg eh, ndawalul ginaar ñi ndawalul xar man na ne sax ñëpp bëgg ndawalul xar ak ndawalul ginaar bu dul ñi nga xam ni dafa ndax amna jëm yo xam ni ndawal sax duñu ko lek amna jëm yo xam ni lu ñu ndawal lu ginaar amna na lu tax ñoom ñu diko ko def waye sëriñ bi dal dañ li dalé ci ba ci gilem ko xam ni sax neexu la jëndal xar boo ko mënee boo ko mënul jëndal xar boo amee lu ëpp xar jëndal nag boo amee lu ëpp njëgu nag jëndal giléem lii mooy ndigalul sëriñ Touba moom mooy sant yàlla moom sëriñ Touba moo woo nag ay taalubeem ne nañu ko santale yàlla ci bis bii di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar noonu ñi nga xam taalibe Sëriñ Tuubaa lañu ñuy jëfe ndigalam àndandoo mooy bis bii ñu dëgmal ëllëg ngay fàttaliku ni fa Amérique boobaak léegi ay siècle yu bari la ba ñu jógee ci ay nattu ñoomit ba nattu yi jeexee ba naataange tàmbali peuple américain ca seen njiit ya dañu ni ñoom dañuy def li Thanksgiving en anglais ci anglais ñu jël kinaara saa yu bis bu dellusee ñu kinaara woote seen biir di sant yàlla ndax ñoom dañoo nekkoon ci ay jafe-jafe nekkoon ci tus tuskare ñuy amoon ay jafe-jafe lañu ñu xiifoon lañu ñu nekkoon ci ay xeex ak lu ne ami jafe-jafe waaye ba ñu tàmbalee sant yàlla lañu ñu tàmbalee nekk ci jàmm ñu def ko nag fête nationale Serigne Touba bi mu jógee ci géej gi te noonu yi jàppoon ko muy tubaab yi à l'époque les colonialistes bi mu ñibbisee la xam ni daa war a sant yàlla waaye du bi bu ñibbisee ba muy dem la jàpp ni moom bi mu biñ ko fi jëlee ñoom ni yee dañu koy Natu, dañ koy dugal ci ay jafe-jafe ne dañ koy rey yóbbu ko ba gabon dugal ko ci gaali géej di bato. bis boobee mu jóge fii ci ndakaaru ci waxu Siri ci la jàpp ne moom da ciy sant demul ba ñibbisi mu mel dañ ko libéré mu door a sant yàlla bi natt bi la ni moom day tàmbalee sant yàlla mooy màggalu Tuubaa gii ne nag ku ko man li dale ci ginaar ba ci giléem ñee it waa Amérique dañoo nekkoon ci ay jafe-jafe ak i xeex nekkoon ci ay coono ci wàllu dund ak la dund laaj mu nga xamante ni bii weesu na loola ñu am jàmm réew ma naat ñu ne kon ñoom it dañuy sant yàlla moom la américain tuddee le Thanksgiving def ko fête nationale kenn du ko liggéey ak loo mën a doon ñoom sax ña nga xam ñoo doon njiit di ko def du ñu sax ay jullit waaye ba ñu amee xéewal dañu ni dañuy sant yàlla ma tukki woon Amérique man loolu maa ngi koy door a xam musumoon wona xam sax ni amon na fête nationale ci Amérique bo xam ni dañu koy def ngir sante yalla xawmako won ren gi la ko doro xam te yalla ne ku sante ma doli la ci la joge kat ni ndekete Amérique kat dañu rawe adina sen développement bi ñu am ci wàllu wàllu wu ne ba tiim nation yi àddina ndekete sant yàlla gi ñuy def boobaak léegi di ay siècle ay téeméeri at te yàlla wax ni ku ko sant mu dolli la man de ci sama gis-gis ci sama gis-gis ndax bu dee technologie bu dee science bu dee lu mën a doon nga xam ni dañu koy jàng ngir développement

santal yalla mi la sàkk ñoom ñu def ko fête nationale tudde ko giving Serigne Touba wàcc waxu Moussa Siri fii ci nakaro ni sant yalla yàlla ngeen ma sant yalla Sénégal nuy dem ba ñi fi ëpp légui di ay murit je l'affirme xam nga fu ma ko tega ah? suis ba yoonu Sénégal c'est un débat ñu bari dañ naa loolu nu waxul et j'accepte la contradiction et je suis prêt à défendre mon point de vue kon nu dem ba Sénégal li tax kat ma di ko wax dama ci am pëj bu wér man rek ab seex laa sëriñ saagi fi ci biir yoonu murit te man rekk am naa lopp douze mille douze millions yu taalibe te ku woote nga ni foofa rek la taalibe yi ne kon man ci lay joggi ni réew mii yoonu murit ci ëpp mbooloo te man kat noppi naa ci ni keneen ku ma mën a wax lu tax ma jóge ci sama wax ji ci sama wàll képp laa laa taxaw ndax man man ay li ñuy wax archive man ku jébbalu ci man la ma koy bind saw tur saw sant say at Faut que ce numéro de téléphone looy Marie maa mes archives. archive je les mets à la disposition de qui veut pour un éventuel contrôle et peut-être l'échantillon qu'on pourrait éventuellement tirer de ce contrôle pour être peut-être plus sûr sont les, à partir des numéros de téléphone qui sont à côté des noms, à partir desquels on aurait pu prendre un échantillonnage d'un certain nombre de personnes pour essayer après, sur cette base, de chercher à connaître le nombre et bien de mes co-disciples, de mes disciples du bon. Voilà la raison qui m'amène à affirmer euh, ne pas être d'accord avec les statistiques officielles qui euh, prétendent que le Sénégal a 12 millions et demi d'habitants. À moi seul, je fais plus que le nombre annoncé et qui est officiel. Le Magal est une action de grâce Eh, sëriñ saaliwu moo ma jàngal ni ak cant mooy xeeti jàmm yàlla yu féete kaw ci xeeti jàmm yàlla yi julli am na woor am na natt asaka am na aji màkk am na loolu lépp yàlla ko digle waaye amul lenn luñ ci wax ne la boo ko defee da ngay dem àjjana dañ la koo defloo rek obligation la boo dem julli obligation la yermande yalla dik nga dem àjjana cant gi na yalla neena na te da ko giñ ci alquran ñaari yoon da ko giñ ci ben aya billahi ku sat billaahi ma dolli la ma gis ni Amérique bu ñu demee ba ñu na ñom man ci adina ñu upp development ci adina sama xel njort ni lolu kep kat may li mu am dañoo jëfee wax yàlla même bu ko ñu bari ci ñoom xamul ndigal yàlla ci lañ ne dee leen ma sant yàllaay buur moom rek jayo ak cat dee leen ma sant ku sant ma la te du ko gi yoon ci billahi ku sant billahi ma dolli la loolee nag dama cee natt sama bopp man mii ma gisee ca man sama yokkute ma gis ni ñu ma dollee man maa mën a firi aaye boobu ci sama jëbb ji ma dëkkee cant ci njaal benn da yàq moo xanaa kii gi suñu mu sant moo xanaa kii cant gi du doy mu mel ni cant daa war a am fu mu yem ndax kii sant day lu mu sant sant sant yàlla mënula sant yàlla ba dab li ko yàlla defal waaye tàmbali nag tàmbali na nag ci Sénégal gii mu mel ni xam nañ lu tax ma daan sant ba taalibe yii nga xam ni ci sama cant gi laa jële sama ceex gii ma seex Serigne Saliou Khadimou Rassoul seexal ma man di ci dem ba fi ma tollu ci Sénégal man de maa ngi jéer de maanaam maa ngi seet ndax je ne veux pas être péremptoire waaye li ma am ci ay taalibe de bo amoon fukki sëriñ ko am ci Sénégal ah kon de wax deug yalla statistique officielle di de sutu ko wax man de leer na man sax buñu les statistiques au Sénégal sont à remettre en cause et c'est sur cette base des statistiques qu'on peut prévoir un développement réel mais tant que on n'approche pas la réalité des statistiques dans un pays sur le plan de la démographie on aura toujours pour développer un pays tapé à côté. Ah, il faut connaître le nombre d'habitants de ce pays pour pouvoir prévoir comment doit évoluer, comment développer ce pays. Mais c'est à partir de moi que je suis persuadé que les statistiques au Sénégal ne sont plus fiables et qu'elles doivent être actualisées. kon bokki taalibe yi wax ji léeg-léeg ma wax dugal ci tubaab maa ngi koy jégalu waaye kat léeg-léeg rek damay tàgg te xam ni li may bëgg a wax tubaab la nu jàng ba xaw waaw ndax da cee bari yoo xam ne boo ko bëggoon wax ci wolof du yomb ñu ko mën a wax mooy ñuy demee ni Cheikh Anta Diop sénégalais bu mag boobee nekkatul

cette situation politique, j'ai lu à partir des journaux, j'ai écouté la, la radio et la télé, mais ce n'est pas suffisant pour en tirer une conclusion. Le Sénégal découpe Serigne Touba le réewum Serigne Touba Serigne Touba de ñaan na réew rek xew optimiste moi je suis optimiste leer na ma ni ku jëmee sa aw ay dugg Sénégal fii Serigne Touba ne yaa koy gàddu yaa koy yen te it ne bëggoon naa wax ji ma wax ngeen di ko fàttaliku ku indi ay histoire ci réew mi réew mi dey nun murit dey nun noo xam ni ku ci ne nag noonu neex waxee ndax réew mii nun rekk du ñu ku ci ne nag am nga sa xalaat sama xalaat bopp laay wax rek waaye na ku ne naw sa xalaat te bàyyi jàmbur xalaat xalaatam man ne sama xalaat mooy Sénégal gii ku ko bëgg a taal sa kaw rekk lay këpp ñaanuma yàlla li daal yee réew du ma tuddi tur waaye ñaanuma yàlla mu feeñ Sénégal ndax day wut nguur jaru ko àddina ci ci boppam jaru ko ndax ñi nga xam ni kat ñoo fi nekkoon di ay réew loola am fa ñu leen cay joox dañu naa nangama tax te ñoom ñooñee ko jiite bu doon ñoom it noonu rek lay demee loolu nag taxul ma tagg kenn waxantuwaa nguur gi fi ne déet déet man sama yoon ci nguur manu murit laa sëriñ Tuubaa yaakaar danañ ni xaj na kat moom daa am ku bëgg faral ba tax muna ah buñu xex buñu nangam ak nangam ak bëgg xex xex xex xeex baa man de duma xexal kenn te duma xex lo samay talubé ñun daal ay murit lañu ñun Serigne Touba lañu yaakaru ñu ab chef d'état ñu ab ab ministre ñun Serigne Touba lañu yaakar te leer nañu ni lenn mënta té ñu ne ci jamm data talax kudul dul serigne touba mom rek te monu ci def te duñ ci jog ku japp nang sama wax ji ma samba waxal wala ma demba ku nek sa leneen lu tax nit ñi mer nit ñi nek ci coono non ay murid lañu non fa ñu tollu di suturlu waaw waaw non ab gouvernement mënu ci dara noonu wa kër Serigne Touba ci jamm kep la ñu nekk ci jamm kep la ñu waxu du gouvernement waxu nu parti Serigne Touba la ñu yaakaar moom la ñu am yaakaar sax c'est incertain waaye dañoo dem ba nous avons une connaissance précise dans la croyance dans la foi que nous voulons à Touba. Nous, nous savons que nous irons de l'avant. Nous sommes des mourides. De plus, nous sommes des tentacons. Nous, nous vivrons. L'histoire de Serine Touba conduit à affirmer avec beaucoup de connaissances que nous, nous irons de l'avant. Et qu'aucun régime politique, quel qu'il soit, ne peut mettre fin à la marche vers laquelle Serigne Touba nous dirige. Je ne parle d'aucun parti politique. Celui qui croit être soutenu dans mon discours se trompe. Je ne suis pour personne. Je ne suis que pour Serigne Touba, Serigne Mais certains intérêts individualiste risque de pousser à certaines couches de population à des situations qui, sont, qui seront à regretter. Moi, moi c'est trop dire. Non, non, non. Nous croyons que Serine Toubadei képp ku bëgg a yàq réew mii du la ko may boo dee gouvernement boo dee parti politik boo dee syndicat ak koo mën a doon réewum Sëriñ Tuubaa bi kenn mënu ko yàq ku yaakaar nag ni sama kàddu gi yow laay waxal nan dem rek ba ci cëppa ndaw ja jóom nga de waxaluma kenn ku dul Sëriñ Tuubaa Je ne rek may je peux certes me tromper mais cela ne m'intéresse pas car ma foi en Sri Touba ne me permettra jamais de me tromper qui veut analysera comme il veut on me prêtera des, des intentions mais l'avenir est là tout proche nous verrons. Je peux peut-être, j'avais peut-être dit, trop dit, ou pas assez, mais enfin, je m'en limite là. xana def ni man jàpp sama jambour man du candidat ñom kenn ci ñewugul lima candidat la ku ma ko ci waxoon it liibar nga dëkk ku ma ci woon nak mak ga waye man sama doxine man Serigne saliw rek la yakar buy Serigne Touba yakaruma kenen melum serigne touba la yakar am mourid la na yoonu murit da am ab khalifa may dama am serigne ah nun murit nak digel la nu am tay ji kat sama serigne la gis man munuma ko gis buma non noonu diw sama déclaration bi bu ngeen ne boo football ko dootu am solo sëriñ bi nga xam ni moom laa yaakaar ba jébbalu ci moom àddina ak àllaaxira muy sëriñ saaliwu li ma wóor mooy képp ku waxoon lu dëppoowul ak moom la mu bëgg doo ko li sëriñ saali woo fi ne moo fi ne ba faw moo fi musa ne képp koo xam ni danga nga doon wax ciw turam jëme réew mi fu ko neexul sëriñ saaliwu du ko ci baax Donc ça sa xel ma far Touba d'aucuns pensent qu'il n'est plus là c'est cela qui ne connaissent pas Serigne Touba Serigne salut. et nous verrons l'histoire va me donner raison et je suis péremptoire Serigne salut est là il est là il sera là et il fera conduire le Sénégal là où il voudra. Et nous verrons. L'avenir est là. J'ai peut-être trop dit, ou pas assez. Mais enfin, c'est là que je vous m'en arrêter. Juste une comme un réfugié politique am réewam am coow mu daw dugg Sénégal yaakaar fi jàmm nekkoon leneen lu dul ab jullit jëkki ba yàgg muy day tuub nekkub jullit lu ca yem day nekkub jullit nekk murit may ab sëriñu murit di seexub sëriñ Touba sëriñ Touba yaa alal bëri

ku ñu bund xataal sam réew yàlla lay gindi Sénégal di réewum jàmm nga dëkk fi nekk ab daw làqu boo maandoo ne fi nekk ak nun boo gisee la nu nekk nun obligé wuñ kenn tuubal doonub jullit boo doonee jullit ba noppi nga jébbalu door a doon murit ki doon tuub léegi je suis qualifié et faut pas que je que je fasse une digression ce qui m'aurait amené à dire que tous ceux qui reçoivent, reçoivent le pacte d'allégeance ne sont pas tous des habilités. Moi, je suis qualifié et habitué authentiquement parlant. Ce ah, c'est pas le cas de tout le monde. Ah ça, je vous l'avoue. Moi, je suis authentifié par Seri salue mon maître suprême. Quand, sur la scène religieuse sénégalaise, sénégalaise, pardon, il n'en demeure pas moins que je sois parmi ceux qui sont suivis par le plus grand nombre de personnes. Mais ça, c'est pas de moi. C'est de Sri Saliou qui est Sri Touba. À moi seul, ah non, non, non, ça n'aurait jamais été ce que c'est aujourd'hui. C'est pourquoi, que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, tout le monde est accueilli au Sénégal où il y a Sri Touba dans les mêmes conditions que n'importe qui. Ce que simplement je préviens aux autres, c'est de ne pas être accueilli au Sénégal, cette terre d'asile, pour venir ici faire des activités politiques capables d'amener les autres à croire que le Sénégal est un bastion de réfugiés hostiles aux autres États du monde. Ça, moi, je ne l'accepterai pas tous ceux qui font acte d'allégeance à moi se conduisent comme des talibis mourides. Ils sont d'abord musulmans et mourides. Musulmans, c'est tout le monde qui, fait, qui dit la ilaha laï laï. là sallallahu alayhi wa salam. qui est, qui est musulman. Tous ceux qui le prononcent sont musulmans. Nous, nous sommes des mourides, c'est-à-dire nous sommes des disciples de Sri Toba sorti de cet ensemble, il nous inspire pour nous donner le souci de la quête du divin. Car l'islam, dans sa partie exotérique, au mieux qu'il peut, ne peut vous amener qu'au paradis. Alors que, par, par le suivi de la voix de Sri Touba, on accède à la proximité divine, on accède à Allah. Comparer le paradis à Allah, comparer le paradis à l'enfer ne serait même pas suffisant. Le paradis, est, la, proximité divine est tellement plus agréable que le paradis. Et c'est là que Sri Touba appelle. C'est différent des autres. Les autres appellent vers, le paradis. Sri Touba nous appelle à vers la proximité divine. C'est la différence fondamentale du talibé de Sérictoire par rapport aux autres. Nous, nous sommes des talibés de Sérictoire. Non, nous ne pouvons pas nous suffire du paradis. Car le seul fait de faire, de faire acte d'allégeance à un représentant authentique de Serigne Touba. Authentique, je veux dire. Un représentant authentique de Serigne Touba. Celui qui le fait déjà bénéficier du paradis. Sans autre forme. Alors, donc, Serigne Touba et eh, cela ne peut en bénéficier que ceux que Dieu a prédestinés à être des Nous sommes de cela. Nous sommes des talibés de Sri Nous ne serons que des talibés de Sri C'est pourquoi notre credo ici chez moi. Et parmi tous ceux qui sont mes disciples, notre credo, c'est l'action de grâce. Nous rendons grâce en permanence à Sri Saliou qui est Sri Touba pour avoir fait de nous ses disciples, nous avoir donc permis d'accéder à ce bienfait qui est le paradis par le simple fait de faire son acte euh, d'allégeance c'est trop beau aussi d'autres pour ne pas y croire mais enfin pour avoir le petit du tigre il faut entrer dans la tanière du tigre on ne peut pas ne pas y on si on peut on peut on a le droit de ne pas y croire mais nous sommes, nous qui sommes entrés dans la tanière du tigre, c'est nous qui pouvons attraper le petit du tigre. Tu ne peux pas être en dehors de la tanière pour prétendre connaître ou avoir entre les mains le petit du tigre. Ah, il faut oser. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, euh, me traiteront de bavard tant pis. Si je dois être bavard et dire la vérité. Bavard, je le fus, je le suis et je le serai. Tant que j'aurai des choses à dire à mon peuple, je ne garderai pas le silence. Je le dirai tout à suite. Car man duma ci dugg ba noppi ba yàlla defal ma ko ma mel ni ku soxor bañ ko wax nit ñi wala ma ragal ba tax duma ko wax maa ko wax gis xam naa ñi yi ñu xam xam-xamu chiffre man nañ la ko wax man nak fofu dama ci forul xam nañ dal y a pas de hasard lu am lu ne mom yalla ko yalla ko dogal yalla na nga xam man nak dama forul ci walu chiffre man taalibu Serigne Saliou la ci wetam la ne rek jottu ba jaggi ay chiffre dedet ak taalu rek la ma sóob booba laajee ci taalube ma wax la li ma ci xam waaye fooru ba nag ci chiffres yi moo na ci lislaam am na ñu bari ñu ko abub xam-xam xam naa boo demoon ba dajeeg ñooña dinañ la mën a wax douze douze yi lu ñu signifié waaye man nag yegguma ca loola kon je donne ma langue